jëf ci déglu ñu ci biir bus Dakar Dem Dikk bii way leen di ñu déglu li gën a neex mi ci kanam. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. RFM matin RFM matin émission bi yee waa Sénégal. RFM matin 7h euh, tegal na fanweeri minute ñu euh, dalal euh, sunu gan niñ leen ko waxee woon sunu gan di Mamadou Gningue salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay dalal bu baax. bokk nga ci euh, mbootaay gi ëmb ñi yor ay école euh, privée ak université privée ci ci réew mi te ñu xam ni doon ngeen jëflanteek nguur gi euh, ci ñu fay yóbbu ñu am bac bees te coow amoon ca ca xaalis bu ñu leen amee ak ñoom seen yeneen ponk dañu ko waxtaan ak yéen lu ci mel ni seeraayu dund gi ndax bokk ngeen ci ni gouvernement bi boole ci waxtaan yi jëm ci wàññi seeraayu dund gi ci ci réew mi maag Georges da ci Diop kon li ñu bëgg a tàmbaleeg yow mooy justement bor bi nga xam ni nguur gi amaloon na leen ko euh, ameloon na leen ko te euh, mu desoon ñaata des est-ce que kañ lañ leen koy fay ak ñoom seen est-ce que mën ngañ ci dikkal euh, tuuti ci ci tënk. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu seen mbokk auditeurs yëpp ak waa téléspectateurs yi nuyu waa Sénégal di kontaan aussi ci invitation bi bu baax a baax Babacar ak di Thiam Faye effectivement. Euh, L'État du Sénégal que depuis 2013 a décidé d'orienter les étudiants à l'école privée invitation boobu vous. bi mu ko defee mu orienté ci ay lim yu baree baree baree bari ay ne bari nañu ci école yi bi à partir de 2017 2016 bor bi commencé à ba mi egg ay milliards ak 16 milliards 17 milliards 18 milliards ay années ba moment 2018 le ministre ñew Dakal, orientation bobu mais bayyi ci pipeline bi lu tollok junni wala fukki junni xalé yo ne 2021 bor bi tey donc nekk bor bu sonal école yi trop trop trop ba nga xam ni que ñu ngi koy xayma tey ci lu mu néew néew néew fukki milliards ak ñaar 12 milliards jëm kaw ñeen ñi di wax 15 milliards parce que xëy na des na quelques précisions. waaw euh, yéeme na trop trop parce que euh, bu ñu fàttali tuuti Mamadou Ngingue euh, am na engagement yu fi kilifa yi jëloon ne daañu fay loolu. Euh, ba mu jeex boobaak legui defuñ ci dara gé amuñ luñu jot woon génne dégg nañu wala wala génnut. dedet mom kay dañuy wax rek euh, c'est vrai que nag euh, at yi di ñew yëpp li indi problème bi moy budget bi nga xamni mom la état di prévoir ci biir loi de finance initiale bi LFI bi da fay néew lool suñ ko mbengalé ak nombre dongo yi mu yoni ci école yi amna na yo xam dañuy japp ni plus de 30000 30000 étudiants dañuy nekk ci biir université privée yi ba mënoon nañoo wax ni privé bi moo nekkoon deuxième université gannaaw Cheikh Anta Diop te budget Cheikh Anta Diop gis ngeen naka la toll nguur gi bu na xayma lu tolloo juróomi milliards ne moom la ciy dugal mu jigi mu dem nga xam ne at bu nekk ñetti milliards la ciy dugal bëgg a bàyyi lu ëpp ñaar fukki junni ndongo ci biir école yi pour ñu jàng xam nga loolu day indi problème moo tax am na at boo xam ni dafa tëb yenn école yi

treize dañ doon tànn école yi accréditation CAMES am accréditation ANAQ wala habilitation ak des critères de qualité ñu yóndu fa élèves yi de 2013 à 2015 mun naa jàpp ni noonu la doxee bi ñu demee ba ci biir nag ñàkkul ni ñeneen ñoo xam dañoo xëy nekk seen biir xëy ñu ubbi seen école wala ci biir université publique de, def de de temps en temps. mais yéen xam ngeen école yooyu pourquoi doo leen ko wax comme ça au moins ñu xam ne ñii la ñu jox ñii la ñu joxul yemalewuñu non xam nga ñun li ñu soxal mooy nguur gi am li ngeen ciy éviter non ñun du loolu moo ñu soxal li li ñu soxal mooy nguur gi moo signé ak ñun contrat contrat bi mu signé ak ñun mu respecté ko c'est-à-dire que il avait dit dañuy orienté nangami étudiant ci biir université bala ngeen di tàmbale genn wàll gi dinaa ko jox su ngeen dawalee ba digg dóom ma jox leen beneen xaaj bi ci à 25 pour cent su ngeen tëjee ba joxe diplôme yi ñu jox leen ñu jox leen bulletin yi jox leen yeneen 25 pour cent at bu nekk ñu mujj di toog ba at bi jeex duñu fay dara ñu dem ba toog di toog at ba at fekk siwaat du ñu fay dara ba bor bi dajaloo ba ëpp fukki milliards ak juróom-benn. Hmm. loolu nag mooy doon problème bi mais am nañ ci yaakaar ne xëy na saafara dina am mais at bu nekk dañ ci jéem a dugal nag dara parce que y' a 3 milliards 5 yoo xam ni ci LFI ren bi depuis janvier daaw ren jii nañ ko voté woon ba tey ma leen di wax. élèves boobu dërëm dugg ca ñëw ci école xaalis bi ñu leen diggoon daaw kon euh, waroon ko fay 2022 jotagu leen ci. jotuñu ci dara waaw te ñu ngi waaj a woote beneen budget Sénégal. beneen budget ci xamaguñu sax ñaata nañ ciy dugg. mais fi ñu toll nii euh, amatul benn bachelier bu bees maanaam xaale bu am bac bu bees bu ñuy bu ñuy euh, orienté ci privé bi ni ko defee woon contrat ba jeex na waaye xaalis bi des na. Euh, projet bobu Mary Teuw Niane bi mu ministre enseignement supérieur moo fi indi won mhm. ngir université Cheikh Anta Diop bañ a ñu yóbbu ñen ñi ci privé bi yóbbu ko ci yeen mom bimu fi joggé la yëf yi dakk euh, dafa melni ni euh, deseetu len benn benn benn bachelier bu nguur gi orienté ci yeen fi toll ci seen seen l'école. ah si si xam nga orientation bi damay fatali ne que concertation nationale Mary Teuw Niane la gaa ci nguuram la fekk mais man mi ci membre des comités de pilotage ci laa bokkoon ak ay kàngam yu mag a mag yow yaa ngi koy fàttaliku bi nga xam ne vraiment ñëpp dajaloo réew mi yëpp tënk ne enseignement supérieur ki dëkk yëpp. ci li Souleymane Bassir Diagne jiite Souleymane Bassir jiite man ci mhm. membre de comité sept membres de comité de pilotage ci laa bokkoon. ñu ñu daal di tënk ne pour régler problème Sénégal ñaari pàcc yi nga xam ne ñoom ñoo séq enseignement supérieur muy l' enseignement supérieur public que nga xam ne université yi état bi moom ak yi nga xam ne ay nit ñoom ñoo ko samp mais di doxal li nga xam ne loolu la nguur gi santaane ñoom ñoo yam dayoo war a àndandoo liggéey Sénégal te pour régler ko tey ni croissance bi di demee ren rek xam ngeen ni am na 75000 bacheliers yu ñëw te suñu estimation joxe ni dëwën 100000 bacheliers mooy am te xam ngeen budget bi nga xam ne état mi ngi koy dugal ci Sénégal état ñaanoon suñu école yi ñu xaaj suñuy préscolaire ci digg bi donc ñun ku doon fayeeku 800000 wala 1 million ci année bi yépp te may fàttali nag ne njàngum université publique étudiant bu nekk mi ngi mi ngi jar mi ngi coûter état bi au moins un million cinq cent mille faites le rapport du budget et les effets annexes par rapport à l'état du Sénégal ñun ñu doon fayee un peu moins ñu xaaj ko ci digg bi ne leen six cent mille la état bi ñaanaat ñu ñu xaaj ko ci digg bi ne leen quatre cent mille la frais d'inscription lépp compris ci biir ba pare ne leen mun ngeen xaar ba école tëj ngeen soog a fay li ci des kon ñun l'effort public on l'a déjà fait la diminution, on l'avait déjà fait parce qu'on avait réduit de plus de 50%. Pour régler les problèmes enseignement supérieur, Maritou Niane Souleymane Bachir Diagne et Sénégal le premier ministre d'ici 2022 vers l'horizon 2022 bacheliers les 50% doivent aller dans le public et les autres 50% dans le privé mais dans le privé de qualité contrôlé sécurisé qui répondent aux normes de l'ANACSUP. indi autorité nationale de l'assurance qualité du Sénégal pour mun contrôler yan école ñoom ñoo am dayo pour recevoir étudiants yooyu kon nag nous ñun dañoo jàpp ni dañoo xaw prospective bi nga xam ni parce que l'OLU moo réglé woon tey la qualité de l'enseignement supérieur à l'ucat mais vous avez constaté mais les dakkal nañ ko loolu lañ bëgg xam nañ ko mais hmm. ren depuis ba fi école enseignement supérieur privé enseignants orienté de l'État yi ñu ngi jeexal troisième année mhm, c'est-à-dire 2018. nekkoon deux mille dix-huit 2018 bindu woon moom ñu ngi ci ba léegi waaw 2018. yi ñi nga at nu ñu woon daaw ñoom ngi ngi ren donc ren jii la ñu jàpp su jeexee comme ni école tëjee nii année scolaire 2022-2023, vingt waratul am ci bir enseignement supérieur privé Ben étudiant bo xam ni euh, état buñu orienté woon. loolu ndax dana am lamu len la jural. ah mais yàq na lu bari xam nga nga jàngal ay xalé ñetti at ba ñent bachelier 2018 yi tey ba tey ñii am na ci ñoo xam def nañ seen ñetti at ba jot seen diplôme ca état bi fayagul seen première année ba non je veux dire nous dul nañu orienté tul ay nouveau bachelier ci euh, privé bi. Mhm. est-ce que dana am le moulin leen jural yéen. non xam nga enseignement supérieur privé de ci orientation état parce que nous, on existe depuis depuis 1990 école de gën a 25 ans.

Euh, vraiment sen sen sen fayeeku itam seer na trop ci askan bi wa mais Babacar motax tax ma koy expliquer ni orientation bi loolu la réglé won parce que état bi daf né comme loolu mënul nek nañu fexé ba képp ku am bëgg dem ci privé bi wala bok nga am chance dem fa état bi mën orienter ni mi orienter ci public bi orienter ci privé bi ñu def ce qu'on appelle une gestion exhaustive dina tax ñu mën wañi prix ba mën def ce qu'on appelle yéen bu ngeen wàññilee état xaaj

la sincérité de ton budget de fonctionnement du mën nek mais benen affaire bi moy serna de wax nañ ko école yi bari na te qualité njàng mi du fep amna ah. ci école sen école euh, ak université privée yoo xam ni euh, ci gis ay xeetu jangale kat da nga yéemu lol tam fo ngeen nangu ko xana du ngeen raxas sen seen euh, secteur bobu dindi li ci baxul bàyyi fi ñi baax. non xam nga man damay wax ni secteur bo dem <laughs> day am lu bax am lu bon.

tey sont des CGE la conférence des grandes écoles nga dem la conférence des établissements privés de l'enseignement supérieur privé bi nga xam ne man foofu laa bokk mais dafa am ay règles yoo fay duggee mais da ngay dem ci ruq ñun suñu bopp dañ gis école yoo xam ni xamuñu leen yëguñu leen état bi di ko xam di ko gis ba pare jëlu ci ndogal mais yow du sa moroomu privé yow yaay ñëw ne da ngay tëj benn école privée donc je pense que tey l' état règle bu leer mooy autorité nationale de l'assurance qualité école bu amul habilitation ces diplômes accrédités wul loolu règle la diplômes reconnaître une système bi ah léegi nag état bi parce que répertoire am moom moo ko a publier ko ces services de contrôle pour que nous puissions réglementer le secteur nous nous sommes demandeurs et nous sommes à côté de l'État pour l'accompagner à l'exécution de ce travail important que le secteur doit faire pour pouvoir exister à l'image de ce que le Sénégal a toujours été en Afrique tu as école mais étranger étrangers, dañuy daw di ñëw di inscrire mm-hmm. diplômé cadre ngay sa tu mm. ah, Ils nouveau bachelier 75 est-ce que vous ba ngeen bëgg ñu qui effectifie non disponibilité nous sommes des citoyens du Sénégal. Oui, bor bor du am rakk ah, même sous Ils orientation bi président de la république il concertation bi

16 ou 17 milliards. Cheikh Oumar Cheikh Oumar ah ñun nak nañ ni ministre bi ñëw tay en tout cas niñ ko déggé mu wax ak président de la république engagement yi mu jël gëm taxaw na ci tank yo pour éponger définitivement ci nag mën nañ ko parce que c'est du social en fait il y a des écoles qui ferment il y a des écoles dont les employés n'ont plus de salaire. mais déjà vous vous avez posé sur la table euh, 3 milliards ah oui oui oui est-ce que jox assurance non vraiment je dois profiter de l'occasion pour saluer son ouverture d'esprit et ses engagements qu'il a pris bi mu rek wax dëgg ñun dañ doon toog atum lëmb pour ñu gis ministre c'est un problème mais mom bi mu en une semaine il a reçu la délégation il nous a écoutés et a vraiment pris des engagements fermes que dans le budget de 2022 bi la sur la loi de finances initiale il y avait déjà un budget de 3,5 milliards qui était voté il a pris l'engagement d'éponger d'abord de liquider ce qui était dans la dans la loi de finances initiale et de chercher même les moyens euh, euh, de wut sax ay yeneen complément budget yo xamné parce que président de la République joxoon na engagement bobu da woon dina solliciter euh, banques yi sur le coup pour voir comment régler les 12 autres les 12 autres milliards. yo xamné mo ne sur le pipeline. légui yaangi wax sank ay euh, domi Afrique yu ñëw fi di jang buñ délo delloo seen réew. Hmm. jàng ci yeen ah yeen privé bi. waaw delloo seen réew nekk cadre. Hmm. bu dé ñi dëkk fi ci réew mi est-ce que am ngeen ay xayma. ci ñiy formé wu ci université privée yeeg école privée yi nga xam ni dafa yittewoo njàng mu kawe mi est xay que xayma ngeen doomi Sénégal yi jànge ci yéen bu nu jàngee ba noppi ndax ñoom ñëpp euh, ndax ñaataa ci mën a am xëy am am am liggéey. waa léegi loolu dama lay leeral xam nga dafa am ñaari phase ci enseignement supérieur dafa am phase bi nga xam ne moom moo commencé depuis privé bi commencé supérieur bi nag laay wax ba orientation bi commencé ba date boobu mooy mille mooy moom mooy 2013. man mun naa wax ni ci école yi nga xam ni jàpp naa ni euh, ay école la yoo xam ni c'est des écoles quand même qui ont que Sénégalais yëpp xam ñooñu ku fa bu sa jàngee à 80 à 90 vingt dix pour cent teete inséré loolu sax moo taxoon ñu bari riir école maanaam téeméer yi téeméer yoo jël waaw juróom-ñett fukk mbaa juróom-ñeent fukk yi am nañ xëy bañ paree seen formation waaw dama ne ba 2013 damay joxe date yu leer dama ne mhm. ba avant orientation bi am parce que moom mhm. y avait la sélection à l'entrée c'était des gens qui étaient volontaires ñoom ñoo tànn seen volonté ñëw ci en plus dañoo am capacité yi jël engagement fayal seen bopp def ci engagement bu wër donc ba date boobu mën naa jàpp ba 2013 2015 ña fay génn et je peux lever la main su sama slogan man da école yi ma doon nekk mooy ku am sa diplôme toog deux ans amoo liggéey ñëwal ñu xool naka def ak yow maintenant à partir de 2015 il y a eu ce qu'on appelle plus de 50 000 personnes qui ont été orientées et malheureusement sélection bi ni ñu ko defee du ñun loolu lañ ñu bëggoon dañuy orienté étudiants yi ba nga xam

nous avons une leen ci université publique yi duñu jàll. duñu leen orienté duñu jàll. Hmm. ba pare ñu indi leen ba pare état bi indi leen ci école yi moyens yi ci waat joxewu ko yow nga sa professeur ba semestre bi jeex la amel ci vacation mun na ko ko fay professeur yi commencé indi problème donc nous, avons Japonais, c'est vraiment plusieurs facteurs exogènes qui ont contribué à ce qu'à partir de 2015 nous am théoriquement ils ont été formés dans les écoles publiques le taux d'échec et le taux de non insertion mun a mais jusqu'en 2015 avant l'orientation je peux presque dire que vraiment l'école privée sénégalaise a été toujours un moteur de qualité et a toujours été un moteur mhm. d'insertion. jërëjëf Mamadou Ning, beaucoup ci mbotayou, ñi yor université privée yeeg école privée yi teewoo kawemi, mu kawe mi euh, université ñu lay gërëm bu baax ci bi gërëm Georges gërëm soxna ni ak ñi mu toogal ñu yendu ak jàmm. jërëjëf Babacar Fall Georges Déthié Diop ak